xasbuna allahu wa nimal wakiilu xasbi allahu laa ilaha illa wa ali tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim maa ngi nekk yëkkati sama kàddu di ziyaare di màggal tey jëggalu nag Cheikh Mamadul Muntaxa waaye di jëggalu murid yëpp di jëggalu jullit yëpp da doomu aadama mën naa jubloo wax lu baax seytaane këf ko mu wax loo xam ne bokkut ak la war a wax. Mbacke Kadior TV waaye doomu aadama rek la ab jaam rek la di jaam bu xeebu nag bu ñàkk solo di jaam bu xe gën a xeebu ci jaam yi kon sëriñ bi maa ngi jéggalu bu baax di jéggalu jullit yépp di jéggalu taalibe yi ñun de ku nu xam mbaa nga déggunu xam ne lislaam rek moo nu ñor xam ne ak taalibe rek moo nu ñor xamuñu lu dul ak taalibe sunu waajur ci loolu la ñu yar. nampatal ñu ci jëmm ji nga xamante nii moo fi nekk yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér di Cheikh Mouhamadoul Mountakha kenn ku ci nekk xam na ni mu toppee woon sunu waajur. Mbacke Kadior TV nekk xam na ni mu laxasaayu woon ci kanam sunu waajur bu tedd waxuma la sax ay waajuram waaye sunu waajur bii nga xamante ne rek ki démb la fi jógee kon ñun mënuñoo def lu dul topp ko mënuñoo def lu dul amuk taalibe mënuñoo def lu dul di sax ci ndigal lépp lu dul ak taalibe amuñu soxla.